court adjourns UDP and City for Sonko's case. Uh, the Banjul High Court, presided over by Justice Hadi C. Rocha, has adjourned the UDP and City for Sonko case to the 20th August 2020. The reason, the reason for adjournment, according to a court official, is as a result of the surge in the number of the COVID-19 cases. So, Munginonu, Euh, code bi nga xamante ne mu ngee dem diggante UDP ak AIC e ak Sirifo Sonko ci high court bi ajoon nañ ko ba on the 28 li ko waral nag mooy comme ñëpp ni nga ko xamee kees yaa ngi yokku te xam naa euh, code bi tamit bugguñu jël chances at this moment pour dajalewaat foofu nit ñi di wax ci loolu euh, so situation bi noonu la demee xam ngeen ne yëf yi moom mu ngee dafa mel ni gars yi foog ñu xaar mm-hmm. yaa waaw ah, am na solo UDP ak ah, Sirifo Sonko's ah, case mu nekk loo xam ne daal dafa amoon mm-hmm. UDP ak IEC UDP ak Sirifo Sonko case bi tamit dafa am so these are the two cases ñoo xam ne ñoo nekk di am beneen bi nag moo nekk ne IEC bi bu IEC bi exactly bu IEC bi moo nekk di UDP dañ sue IEC to to for failure to conduct by-elections wow. Ah. on the seat of Sirifo Sonko. Exactly. Sirifo Sonko in the same vein also dafa uh, so, wow, IEC court pour ñu maintain ko and not conduct by-elections on his ah, seat. Wow. So mun ñang uh, mm -hmm. affaire xam naa duñ ci comment lu bari ndax xam nga ne affaire court la mm-hmm. waaye situation bi foofu la tollu xanaa boo ci amee benn ñaar rek balaa ñoo dem. Non li ci am rek li ci wax rek mooy ne rek ñuy gaay comme li ko waxee li ci kanam rawul ay bot. Waaw ñu ah. ñu xaar comme affaire loi la. Kon yëfi loi moom dafa